ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع samedi ci guddi man ak moom dañoo toog bunt kër gi ba côté minuit ma ak moom ñoo toog mu ne ma Cheikh Baye mu ne ko naam moo man lan laay utiti ci àdduna lan laay dawatel lan laay dawalatil àdduna lan laay utiti man soxlaatuma dara lépp lu ma yor yéen a ko moom baat bi la ma mujjee wax mu jug dem tëri te dimanche bi muy génn àdduna toog na fii julli fajar def laajimam yeeg dem yëpp jug dem tëdd ci néeg bi feebar bi daaneel ñun dañ doon dem tool ci jour boobu noonu jour dimanche bi dañoo dem ba bunt kër Pa Cheikh Moussa pour jël xale yi yaasina bu ooma ne ma bul dem yaasina bu ooma ba ma ñëwee an ko fekk ci kaw lal bi muy tëdd tar tari alquran làmmiñam bi lott na waaye for naa ci daal muy jàng ayatul kursi yu ak wallaahu ahad ba mu demee ba sonn ba sonn ekkiti na loo xam ne ma sama bopp dafay métti te karaama bi ci gën a doy waar mooy ne arbaata achar la judd ci rabi saani jénn xamsa wa ishrin ci rabi saani dimanche la judd dimanche la génne néegam fii jën del siwaatut kon bis bu judd bis boobu la génn àdduna kon ku ñu ñee la waaye nekkut koo xamante ni dañ koy dañ koy yërëm wala ñi wax ne ñàkk nañ ñàkkuñ ñàkkuñ ko ñàkkuñ ko mu ngi fi ba léegi ak ñun kon nag yàlla nañ des ak mbaaxam li ma gën a yem ci moom nag li ma gën a yem ci moom muy karaama bi ma gën a yem ci moom mooy taqoo gi mu taqoo alquran mbooloo mënu koo bëree mm-hmm. hmm? mbooloo mënu koo bëree maanaam xat-xat it mënut tax ba mu xëy du jàng jukkeem bi gis nga keroog ba mu daanoo ba mu tëddee feebar waxtu jàng jukkeem bi jot dama ne Cheikh Moussa tey jukkeem bi wéet na dama ne Cheikh Moussa tey laa mus a gis tey jii laa mus a gis papa bis boo xamante ni jàngu ci alquran te ma ne ko sax te mu ngay jàng alquran alhamdulilah rabbil alamin في علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع